sama gars yi maa leen di bégee di leen siyaar gis ngeen tey Mbagnick moo doon jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy Ardo bëre nañu yàlla dogal na Mbagnick am na ndam ci kaw Ardo waaye teewul def na déplacement ak dénalement ñëw seet si ki nga xamante mooy Ardo Mbagnick nuyu naa la. ñu gis nga bëre ak moom combat bu neex ngeen jëflante yéen ñaar tey nga ñëw. seet si ko lu waloon say tànk. Ardo nuyu naa. <laughs> ñu gis sa waay sa adversaire tey ñëw na seet si la. noo dundee loolu. di bëgg rek di bëgg rek comme li ma waxoon rek fii ëppale wuñ ko fi quoi fii parcelle la la du ñu yàqu noonu li ñu xam mooy maanaam ñun comme li ma wax rek ëppale wuñ fi dara heure bu fi bëggee dugg na fi dugg fi amul sens interdit pour kenn nag pour kenn du moom kese pour ñëpp bu fi bëggee dugg na nga dugg de na nga génn amul violence amuñu loolu yore wuñ ko kon tey mu def test bu nice def ko yàlla ñëw set ñu digoon nañu ko bu yàgg amaana nag yitte yi la ñu ko doon xaar ba ndax moom tamit euh, suñu jom ak suñu jàmbaar tax na ba gars yi dañ koy dañ koy bëgg fii moo tax yàgg na fi lool yaa ngi soog a ñëw mais yàgg na fi ba léegi toog mi ngi waxtaan ak gars yi day wane ni ba tey si ñun nga bokk làmb lii rek la bu boolewul du kii tamit ma koy rafetlu trop bu baax a baax di ko di ko félicité. di ko wax dëgg yàlla bu jig yàlla bu jig yàlla am carrière bu naaj bu bëgg si laaj boo xam ne yàlla suñu borom defal loo ji wax. dama bëri moom yow moo dam ñu ma félicité dama ne ki ngay bëri champion la quoi. Mhm. est-ce que moom moo gën a marqué quoi koo def ni ki ngay bëri champion daanaka. am gars yi gën a jàppale quoi mu gën a yokk entraînement yi. yokk entraînement yi amul kii war a daal. foo jëm. am na loo mu dee léegi de. Ah? am na loo mu dee léegi de. lamb rek bu gars yi nangoo bëri ka man am problème boobu quoi. ku ah. nangu bëri. gars yi nangoo. man ne nangu naa bëri yow foo toll.